commune de Biscuiterie am na maire bu bees mu nar a def ay jéego yu am solo ci gox goxaatam ay fan gannaaw bi mu tàmbalee liggéey bi. situation bi xaw na jafe tuuti parce que quand même sunu maire bi nga xam ne moom la ñu wutee tëdd na lu mat ñetti at ba ci ñeenti at kon moore bi nu mu woon fonctionné fonctionné wul woon noonu mooy maire bi actuellement sax dañoo coupé ndox mhm. boo seetloo ci teen la ñuy jëfandikoo pour mën a am ndox. loolu mu ñu war a rek la déjà rek facture bi rek egg na 60 millions. askanu biscuiterie yi am ci yaakaar lool ci seen maire ngir mu saafaral leen yenn ci ay jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel ñun waa ñaari tali daal li nu soxla ba gën koo soxla mooy moo de am ndox ak courant. man nag benn succession dong laa fi njëkk am mooy trajet bii nga xam ne bi def nañu ko mu am ay piquet yu ndaw nit ñi mën a dox digganteem ak. ak miir bi doo jotee kenn ñi nga commencé dégg nga di fa installé fëli ca kanam yoo xam ni da ngay dem baag nga wàcc ci kaw tali bi. liñ koy xaar mooy assainissement am nañ problème am am nañ problème marché yi tamit xaw nañu salte ñu koy ñaan yenn koñ yi na mu pavé koñam avant muy doon maire mu jàppale ñu ci mu pavel ñu suñu koñ. wàllu sécurité bi tamit dafa xaw a manqué. kon nam jegewoon askanam avant miy nekk maire kon war na gën a góorgóorlu jege askanam. Djibril Wade ak équipe municipale am fas yéene def seen kem kattan ngir indi ay solution ci mbébétu askan bi. Euh, éducation maire bi xawoon na ci sooxe dinañ def tout tout tout ci biir mois de décembre bi yenn problème yi nga xam ne éducation amoon na ko mu fournitures scolaires yi ñu ko jox élèves ak maîtres yi. beneen bi mooy ASC yi nga xam ne danañ am at bu nekk subvention te ñetti at a ngi ñeenti at a ngi amuñu ko buñ ci tolloo dinañ leen ko defal loolu dinañ ko dinañ ko jéem a réglé. bu ñu defee loolu nag li des mooy nag ah, mooy bu métti bi. environnement maire bi moo cetal commune de Biscuiterie bokk na ci ay défis yu mën a relever mbirum Kaaraange. commune de HLM am na poste police commune de Grand am na poste police waaye commune de Biscuiterie bi nga xam ne moo nekk seen diggante amul poste police. mais léegi def mooy jéemoot liggéey ak police waxtaan ak nit ñi taxaw. pour seet kaaraange gi ndax lañ koy mën ndax lañ koy mën defee loolu nag dafa laaj collaboration ak ministère de l'intérieur ak la police. Djibril Wade doon itam président ASC ñaari tali yi. waaye daanaka lépp benn la ndax jàppale seen commune moo leen tax a jóg. ndax man sama sama liggéey tamit fa may liggéeyee ak li may def ñaari tali ak li may def yëpp liggéey mën naa la benn liggéey rek la. Mhm. liggéeyu manager la liggéeyu manager du leen nag liggéey loo nit. donc yow da ngay surveiller da ngay rek. gëm naa ne fi ma nekk nii di fi liggéey muy biscuiterie yi ak ba ma nekk muy NGB ñaari tali yi am na ressources humaines yu baax. équipe municipale bu Biscuiterie yi fas yéene lëkkaloo ak askan wi ngir ñu atteindre seen objectif laata seen mandat bi jeex.